mi ngi doon mbokk yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte kontaan dañu ñëw fi nga xam si moom mooy Fass fekk fi Siteu bu anti jógee nag ci tàkkusaan gu mag combat bu doy waar combat bu am coow combat boo xam ne ñaari xale ñaari ndaanan kenn ku nekk am loo xam ne dafay topp sa ginnaaw macha allah mu doxoon ci diggante booy Diop ak ki nga xam ne moom mooy Siteu bu Anta nekkoon lamb joo xam ne wax naa ne lamb ci coow lay taxee waaye ci coow lay jeexee combat bi jeex na ba coow li des na fi macha allah Siteu ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi. waaw lay fay waaw onze bi la bisimilah ni wala wax na jërëjëfe borom borom Touba jërëjëfe Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul di santaat yàlla julli si nen sant sama ñaari waajur ñaanal fu ñu tëdd yàlla na yàlla yërëm leen xaaral leen àjjana ñaanal di sant waa taan bi yëpp maintenant Gueule Tapée Colobane mbaa ñu fenn Grand Dakar xam nga ngi sant taan bi ñëpp di leen gërëmaat bu baax di nuyu ñëpp waaw di leen dalal jàmm bu baax waa SBT Média bi. ok waaw dëgg la waaw bii mooy deuxième fois. laalee ci lu bëri. waaw lu leer gis nga <laughs> noonu la demee làmb ak loolu ñoo ànd quoi làmb moom ak coow ñoo waaw noonu la demee. combat bi sa diggante Boy Diop moo nekkoon si ñaata combat. moo nekkoon waaw combat mujj moom mooy bi nga def bi nga dugalee waa ji top 5. waaw waaw waaw yàgg fa lool. waaw gis nga noonu la demee nag kanante la woon. maag Douglas numéro 2. waaw. maag Douglas numéro 2 la wax. ginnaaw bi nga jógee si diggante Douglas ñu wax la ay adversaires yu bëri donc nga def choix ñu wax Diop Boy Diop ñu wax ay adversaires yu bëri mooy mu def choix ne Siteu bu anti pourquoi ngeen def ngeen defoon choix seen diggante Boy Diop. ah waaw boobu xale laa muy xale ku nekk di prouver di wane sa bopp waaw gars yi la balaa ma ji amateur ko taxawal laaju ma ko laaju ma. waaw amateur yi ñoo xool xam ne lu jaadu yoon la ñu taxawal lamb ji waaw. na yeneen adversaire yu ñu doon wax. waaw wax nañ ma adversaire jeexal say morom am na ñoo xamante ne arrangé am na ñoo xamante ne arrangé nañ ma mais lamb mënoo fi nekk di bëri saa su ne saa su ne xool nga xamante ne sa morom boo xam ne mu ngi yoon comme yow ñu boole waaw boo ko daanee nga dem lamb moom lamb mooy loolu ñaari ndam mooy dugg mais benn ay génn waaw noonu la demee voilà loolu la quoi waaw. sa diggante Boy Diop est-ce nga xam nga ko. xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax moo tax. bëreel xam naa ñu bëreel xam naa ko bokk nañu journée. waaw. <laughs> ngeen bokk journée. benn yoon lañ bokk journée. fan la woon di sa diggante ak. arène nationale maa ngi përi Baye Fall. yaa ngi përi Baye waaw. mooy moo daan ma daan. waaw noonu la demee noonu laa ko xamee xamul làmb nii rek. xamul làmb ko xam. waaw la demee waaw. mais ginnaaw bi ngeen bokkee suñu foofu defaat ay jaloore. waaw def na fi ay jaloore man ma def fi ay jaloore moo tax ñu boole ñu ay armée bëriwaat fi ay combat dëgg la waaw man tam bari naa fi combat mu bëri ay combat daan ma daan boo xoolee cinq victoire la ma am cinq victoire ñu boole ñu voilà ma teewul maa ko ëppoon waaw noonu la demee nag waaw waaw noonu la demee nag quoi yi boole ñu ma keroog lu xew gars yi gis nañ ko quoi. non bala ñu ñëw ci xew keroog. bi mu taxawee coow li bëri yéen ñaar xas-xas bi lan la. waaw mais xam nga làmb la ñaari xale yi nekk si yoon moom seen làmb foofu noonu la mën a demee te ñu daal ñu ba ñu wane suñu boobu jaay suñu combat ndax promoteur bi loolu soxla amateur loolu lañ soxla waaw ndax loolu mooy jëmale làmb kanam quoi waaw mais teewul ñu ñooy mayante xaalis ay xale lañ noonu la demee quoi làmb moom foog mu coow xam nga keroog ñëpp ñëpp kontaan nañ isaat làmb ji fees na am na ambiance suñu combat sax boo xoolee daanaka. ñëwagul ci mais parce que boo Diop dañ ko wax mu ne surtout kii bi ñu seeti ko mu ne surtout bu anti combat wax la si am mais bu ñëwee maay def lépp. ah keroog gaa yi gis nañ ko def lépp. gis nañ ko attaqué ku song ku bëri ñëpp gis nañ ko moom deful dara. ni nga ni nga bëri booy jóg initiative bopp daa nga ñëw bëre teg ko ci yoon. dëgg la mais ko moo tax noonu laa ñëw appliqué ko. parce que man dama gis bi arbitre sifflé parce que rek moom xam nga lan la fa yaakaaroon ne moom ëpp doole waxoon naa ko signature boo jàppee yaa ma ëpp doole yaa nax sa bopp mais bu ñu jàppante baaraam xam na bu baax que ni man mooy loolu te man moo ko jàppee xam naa ne maa ko ëpp doole ko si ñëpp gis nañ seen bët maa bëre maa def action ba ba ba si jële bu mujj bi maa def action mu daan ma si daf ma contrer rek mais bëriwul xeexul. combat bi nag amateur yi séntu woon nañu mbàccum gerte ndax seen xas-xas loolu li ngeen waxante yëpp ah làmb mafia wax dëgg yàlla séntu woon nañu mbàccum gerte nag dem aar la ñëw sax. non dëgg la dëgg la mais lamb làmb du yëfu grillé quoi lamb ay naxante rek fii la quoi. waaw mbër mën nañu wax yow si dama damay reyante yow nga ñëw mu yoru laa mu loolu la ko waa du yëfu grillé. booy town noonu la demee nag <laughs> waaw noonu la demee ñun ay booy town lañ dafa as lañ juddoo. mel naan na la de. waaw nga waaye ndaanaan la quoi tamit. waaw dama ko koy nangul. ndaanaan la bërikat la champion la dee victoire bi moom la ko waa CNG jox dama ko ñaan yàlla mu jikko ndax man xale bu ndaw la amagum lu may bi bi bi sifflé la moo tax amul ravante de service kenn si yéen taxaw waaw man lu ma ko waxoon laa ko appliqué man nee naa ko du ma ko reculer maître te noonu laa ko defee du ma reculer man du ma wax luy deñ man du ma mbër wax naa ko moom moom dafa jàppoon ni dama ko ragal wala dafa ma ëpp doole wala dafa maa dàq bëri te alors que loolu bu ñu dalantee xam ne amul boo jóob su ma taxoon di ko xaar fi ba suba laa mujj du jeex ndax ñëwee ma attaqué wallaahi ñëwee ma attaqué parce que maam Serap Fall déggoo lu ma la wax combat am yëpp moo attaqué gars yi déggoo lu ma la wax ñaari song maa ko def ah, lu fa am di bëre maa ko bëre du am si bëri maa ko bëri songu ñëpp gis nañ ko yow yaa ngi foofu waaw noonu la demee boo boo jow dafa am mbër di ko xaar du xaar mbër <laughs> dégg nga la wax man du ma ko waxee laa ko defee man du ma xaar mbër billaay wallaay ci combat bi nga analyse ñu ko techniquement bi arbitre bi sifflé nga commentaire combat ba premier site bi ni mu amee waaw premier site bi dañ jàppante loxo parce que moom sutur lonos quoi boo xoolee te jii maa ngi moom waaw woo ko ci xeex laa mën a def mu kii ma jaxasoo ak moom ndax xam man ëpp ma bëre xam maa bëre mu ngi si man moo doon ma jaxasoo ak moom bëreloo ko kere boo may taf loxo bi di ko sànni sax ba koy bët ko bett da ko bett ma taf loxo ko di ko rof ci abaxal mu teggi tànk bi ndax moo ma sut ñu teggi tànk bi nag ma ñu suuf man ma dóor sama sama conc mais moom épaule mu ngi suuf sama yaram boo xoolee fenn takkul suuf moom boo xoolee bu ñuy daw mu ngi may joxoon ay zone te zone sama zone bi ñaari mu ngi ci suuf mais sama loxo mu ngi ci kawam moom sama liy tegu boo xoolee épaule bi yëpp laal suuf lépp laal suuf arbitre bi maanaam fëggatu ma ne ko man la moo dàq si man sama yaram taxul suuf ma ne ko sama yaram taxul suuf xam nga mais des fois gars yi dañuy def lu leen neex si làmb nañu bàyyi yooyu noonu rafetul quoi parce que ñun ay xale lañ dañuy daj lu ne suñu combat daj lu métti ànd suñu mbokk ànd suñu staff préparer ay weer entraîner lu métti ñëw ñuy jaay suñu combat yi du yoon quoi. maanaam arbitre bi ma tooñ parce que site bi sama kanam la amee mais arbitre bi ni mu toogee moom ak lu ma ñàkk ci làmb ji arbitre bi ma ko xañ moom ndax man nii la ma nii nga daanoo sama kanam mais mënu maa génn benn image bu leer parce que arbitre bi man moo ma xañ làmb ji dëgg dëgg la parce que arbitre bu toogoon arbitre bu benn arbitre bi naan jël amul moom fële la toog mënoo gis lu xew mais kee dafa daw si ne ji carrément jeex na tàllal loxo arbitre bi nga xam ne moom si kanamam ngeen daanu kooku moom war naa mën a wax lu leer kooku moo ne jeex na mais ñun ñoo ngi si biir géew bi dégg nañ arbitre lu ñuy wax kooku moo ko ne carrément jeex na mais bu mu laajee kee dafa nañu bëraat parce que kee man ak moom xaw nañu am yenn malentendus si biir géew bi moom ma naan gaawal mën a ko mën a ko defal ndànk sama butéelu doo ma sorxo sorxo yaa ngi dégg loolu nag moo ko xaw a métti moo tax ba nga ah, waaw mais bañ ko laajee mais ñun suñu suñu lamb dañ ci def suñu xaalis financé ay financement lu métti duñu ñëw dañuy sorxo sorxo dañuy bëttal dañuy jël suñu temps def ko ni ñu ko waxee waaw mais nañu bàyyi yooyu duñu waaxu si biir géew bi loolu moo ko métti mais premier site bi mu amee bi arbitre ñëwee ne euh, taxawaale ngeen bëree dafa mel ni amateurs yi ñoom ñëpp d' accord waaw mais dinañ d' accord mais man mii dama bëri xam naa lu xew man sama yaram amul fa takku suuf vidéo ñu ngi fi lamb ji léegi amul ay werante ñëpp a ngi fi site yaa ngi fi télé yaa ngi fi amul luñ ci werante sama yaram amul fu takku suuf bu ma jugee loolu sama conc amul fu takku suuf ba tey yaa ngi gëm ne bëri ngeen première action bi nga jàpp yaa daan nga jàppaat ne bu arbitre bi waatee même chose nga ñëwaat bëriwaat même chose waaw dëgg la parce que dama jàpp ni kii maa ko ëpp doole ñaari yoon ma loolu laa ñëw pour imposer ko wan ko ne man du ma sa morom barki alxuraan keroog ku ku ku juumul doo daanu wallaahi ku juumul doo daanu mais loolu laa ko ñëwoon appliqué wan ko ne man du ma sa morom te dama ko ko waxoon boo jóob bëriwul xeexul lu fay neex keroog maa ko def si lamb ji si bëri billaay sant yàlla rek ndax nit ñi moom lu ngi leen wan rek lañ leen di toppee lu ñu leen wan yar teggin ko cër yaa ngi dégg ñun xale yi ndaw sax mën nañu taaral suñu yoon koo romb jox ko cër boo bu ma doon romb wala ma faale kenn bu ma xew ah. la kenn loo xam ne lu tax ñu may topp may ma fi kenn dara lu tax mooy topp mais lu ma leen wan moo baax surtout naa gëltaa bi temps bi ñëpp naa nuñ ma taxee gis naa nu ma gaay toppee di santaan ñëpp surtout sama gars yi ni aw ma seen fay yu mel ni ay coba ñoom booy jou laay si gars yëpp aw ma seen fay parce que yàlla surtout coba maa ngi ko mention spéciale maa ngi koy bu baax a a baax laay. ñu gis ne ñu euh, jox ay mbër yoo xam ne dañu fay ay ay trente millions soixante millions. te stade bi du mel nii ñu jël ay mbër yoo xam ne ay mbëru premier combat deuxième combat surtout ay mbëru quatrième combat ñu jox leen grand combat ay mbëru troisième combat jox leen euh, li nga xam ne moom mooy combat spécial ngeen ñëw du stade bi. keroog gars yi boo xoolee xale yi lu ñu mobiliser sax mbëri mag yi mën naa duñ ko mobiliser. waaw moo tax nag xaalis dañu war a fay xaalis. dañu waaw dañu war a fay xaalis quoi ñu bàyyi ñuy teg nii ndax ñun suñu làmb moo gën a neex combat ñi ngay gis ni bëri mag yi parce que alxuraan dañuy keroog stade ku fa dem xam nga ni lii làmb la saf ñëpp a kontaan waaw ñëpp a ñëpp a kontaan amul dara te làmb yi dañuy bëri neex da ngay ñëwee da nga leen fay ay 40 minutes ñu koy buxante mel ni football ñun da nga ñëw gis bëre gis xeex gis ambiance mais kon promoteur nañu bàyyi nit ñi fay xaalis nañu fay xaalis ñun xale yi nañu làmb ji ëllëg ñun ñoo koy téye ji nañ ci bàyyi xel bu baax waaw. mu ngi noonu SBT Média la seen émission seeti mbër ñu seet si Siteu bu anti ginnaaw bi nga xam si ni bëri na ak Boy Diop combat bi cooli bari donc ménagère bi jël nañ ko muy Sëwru Fall nee na dina def li nga xam ne moom la ko yoon may muy recours Poulain moom moo daan dégg ngeen euh, Poulain muy Siteu dégg nga li mu wax jàpp na ne moom première action bi moom moo daan ki nga xam mooy Boy Diop mais comme ni ko père Max di waxee rek ñaaree du gumee benn génn euh, donc arbitre cérémonial du terrain nee na ni ñëwaat ngeen bëre ngeen bëriwaat mu daan la jël ba amul benn werante donc arbitre jox ko victoire am mu yóbbaale drapeau ngeen bëri drapeau ki nga xam ne moom mooy Matar Ndiaye le grand ménager. Ah, waaw boo Diop kon li ma la wax rek man nit aduna nga wax sa mbaaxuwaay waa ñu sa mbaax dara dama ko nangul champion la. di ko ñaanal nag bu dee CNG dañ ko jox ndam li yàlla ko ndam li jig di ko félicitaat bu baax a baax ndax xale la xale la làmb mu ngi seen kanam. yaa ngi dégg làmbaa ngi suñu kanam. dëgg la mais daa am fu ñu teg suñu bët te si kattan yàlla gëm dañ fa yegg di koy félicitaat bu baax a baax a baax di santaatam Badane Ndiaye di ko wax yàlla na doon ay drapeau yu drapeau xam nga ndax affaire tamit gën a jege gën a yey xam nga drapeau am poulet am nañ ko tuddee woon drapeau poulet am drapeau am tamit <laughs> loolu jaadu na quoi dañ koy comprendre Dakar dafa jëlaat sa ménagère muy Sourou Fall. <laughs> waaw gis nga benn la ñoom ñaar ay ay waay la ñu ko waa benn lamb ñu ñoo bokk ndey boo ko bàyyi xam nga sport kese la du weesu sport lamb du dara day jeex quoi xam nga lamb day jeex du dara. mbooloo bi nga nekk yaakaar naa euh, armée bu ndewraan moom it ci la bëri ñàkk. waaw ci la bëri ñàkk ko ci mel tam Ibou Afia bëri ñàkk mu nekk lu met si ñun keroog quoi mais dañuy santaat yàlla xam ne saison bi day doog a tijji ay xale lañ comme li ma ay xale lañ lii du dara man lii bu nekkee defet fàtte naa barki Seydina Ahmed fàtte naa ko ndax xam lu nekk si man xam gëm-gëm ak sañ-sañ bu nekk si man di leen encouragé waat ñoom ñaar bu baax armée ak Ibou Afia di wax ni ay xale lañ lu may wax sama ku may wax sama bopp li ma njege naa laa leen wax rek ay xale lañ dañ takkaat suñuy daal nekkaat si te xam ne làmb mu ngi si kanam làmb dañuy yaakaar te làmb xam nañu kon tey caaxaan waratuñu ñaari fàtte nañu lii sax wala dañu xool lu nekk suñu kanam est-ce que combat bi bi ngeen ko jël ak préparation def nañ ko kay man chaque combat pare naa man suba suba suba bu ma joxoon combat pare naa parce que du ma toog bay combat di entraîner damay entraîner chaque jour chaque jour maa ngi si moom def nañ lépp lu war lu ma daan pare sama combat yeneen laa pare maag Boy Diop yàlla ma waxoon keroog Boy Diop mooy am dam Siteu du daan keroog lu ma mënti woon def ñàkk yàlla moo ko tudd mais su yàlla waxoon damay daan ke mënu si dara man maay daan dem ñibbee ndam li mais keroog yàlla moom la jox ndam dañ koy nangu di wax ni làmb mu ngi suñu kanam quoi lii du dara. waaw Ibou jeex jaam Ibou boo xoolee dafa xawoon nelaw si benn côté quoi mooy lu ma la wax rek làmb booy daan cuune ngay doon quoi waaw Ibou koo xam xam ko ko si ñame fët jom fit fulla ak fayda ak mën a bëre. est-ce nu mu bëree noonu la waroon bëri. non nu mu bëree moom man d'accord ma si quoi parce que benn instant yaa ngi taxaw fii bëgg a yor caabaxal fële mooy lu ma lay wax du cuune si làmb mais booy daanu cuune ngay doon doo xam sax xam naa ne bu mu jógee sax comprendre lu mu demee mais Ibou Afia ak jeex jàmm rek ñoom ñaar dañuy dañ leen di encourager xam ne ay xale lañ keroog bëri nañ lu neex mobiliser nañ stade bi neex na di féliciter waat jeex jàmm di ko félicité waat di ko masaw tamit ci ay supporters yi gaañu woon xam nga di koy masaw bu baax a baax a baax di ko félicité xam nga wax ne làmb nii di ko ñaan ndam na ko jig ñaan la ibu tamit ak armée bu ñu amatee combat yàlla na yàlla may ndam quoi ak képp ku nekk équipe bi Colobane mbooloo ñu day ñaanal bu baax a baax Euh, bi jiyee loolu amee ñu naan commencé nga gis nit ñi commencé xam nga làmb moom dafa yéex donc ah ji dañ ko war a jëlee Sénégal nangam nangam te keroog xeex amu fa dara amu fa xañ na ndogal moo ñëw ah supporter bi làmb jeex ñu bëgg a génnandoo ci jamono boo xam se ni ku ne xam ne ren ndox mi dafa bari ba pare miir bi donc boo xoolee ba mu daanoo boo xoolee du fer du béton dara loo fay gis donc miir bi dafa guus dëgg la waaw xam naa bu xondu bi la quoi mais nañ bàyyi di wax lamb daa am violence gis nañ fi nawetaan moo bëgg violence lamb fuuf amul dara lamb amul benn violence amul benn violence des fois tamit on tën yi dañ leen ñaan ngir yàlla wala suuri nañu may booy jàmm quoi parce que des fois da nga gis booy boo xam du def dara barki alxuraan dañ lay tegal métti teg la pression jàpp la dóor la dóor yi métti bay sama benn booy da nga ko jàpp dóor ko dóor yi métti te deful dara waaw dóor ba gaañ ko deful dara man sama oto ba mooy dugg si stade bi ñu ne maanaam la ma ne oto bi oto mbër looy laaj ku loolu ay laaj ku nekk si oto mbër bi loolu ay gàllaaj nañu bàyyi yooyu quoi am dota nii nañ nañuy seen affaire nit ñi bu ñu leen dexee joxee nañu jox cër gars yi bu ñu jógee booy dañu am violence booy dañoo booy defuñu dara ñoom ñooy tooñ booy des fois CNG dañ ci war a bàyyi a baax a baax ñu bàyyi tamit jox bu ëpp bi oto mbër buy dugg nga naan la moo ne si oto la moo si ne lan moo si ne boo leen tontoo wax leen wax bu kii ñu andi la seytaane dur la du yoon quoi nañu bàyyi xel bu baax baax waaw. ginnaaw bi nga jógee sa digganteeg euh, Boy Diop làmb lay taxawee ci coow lay jeexee ba tey coow li des combat la boo xam ne amateur yi soxlawaat nañ ko si kanam te xam naa ne booba ci la xaas bi gën a bëri bii moom fay nañ leen mais xam naa ne revanche boobu hoo. waaw dina neex xale la xale la làmb ngi si kanam nañ dem ba làmb boolewaat ñu waaw. revanche boobu moom fekk ma nekk promoteur rek. waaw gis nga làmb ci ko tànk ci ko jaan si suuf moom yàgg yàgg dox daje. waaw dinañ dajewaat incha allah rabi. mais ah waaw <laughs> door fayu door fayu. Ah. bilaay wallaay man ku ma ku ma xoq ma ku ma waxuma xuri la. bilaay defar moom man mun naa ni man sportif laa quoi mais sama gars yi laa si yërëm waaw di leen masawu waat bu baax waaw di leen waat bu baax baax a baax gis naa coono nañ si daj. barki yàlla man dama faata sama bopp saafara mais dama leen di masawu bu baax xam ne làmb nii la làmb nii la quoi barki ma laa fi daan mu neex trop xam nga képp ku ma daan gënu ko defalu ma yàlla lu tax mu may ma ndam xam nga. mais tey jii su ma demee ñu xañ ma tam damay xam ne tam yàlla moo ma xañ léegi itam boo fi nekkee di kii ñàkk gëma di yàlla la yàlla moo ñu xañ quoi nañ koy ñaar mu ak moom mais dégg naa ak benn waayam bu ko jege muy mbës maa ngi ko nuyu au passage quoi <laughs> mbës ma woo na ma <laughs> ma encouragé mu naan lu mu wax ma ne ko daal benn recours mu naan ma non vingt cinq mille mënoon nañ cee laal ay ginaar yu baax <laughs> dëgg la waaw ah, mais noonu la nit moom soo nekkee a jaay quoi quoi noonu la demee mais maa ngi bu baax xam nga mais saa yi déggantoo ñu mais maa ngi koy félicité bu baax a baax a baax di wax a góorgóorlu rek moom dañ koy sant bu baax ndax keroog bu ko neexoon ay mbëri mag lay tëgg mais deful loolu defuñu fi dara si làmb lu tax ñuy bëre ay spécial wala ñii di bëre grand combat barki alxuraan mais si loolu. waaw gis nga mais dañ koy santaat bu baax a baax a baax a baax wallaahi azim dañ koy sant bu baax di ko ñaan yàlla mu dem ba doon ay doon promoteur leader boo xam te ne tey jii nii moom mooy téye ji làmb ji xam nga baax na de fu mu ko teg foofu la non dafa tegal loxo bu baax <laughs> fu mu ko teg jeexaat foofu faram doom de voilà noonu la demee nag dafa tegal loxom de foofu la de ah, te ñun xale ñoo yor làmb ji ah, keroog keroog macha allah esa bi mel am na mbëri mag yi fii du fees ni lu leer laa lay wax ah, war na yàlla mbëri mag yi ngay tëgg du fees seen ko combat du neex du fees du saf dara du saf làmb mais non war ñu ko tëj nag parce que ñun ñun tam boo xoolee tamit instant yi ñun ak suñu fii la ñu ah fii la ñu arrangé ndax amaguñu xaalis boobu noonu des fois ñuy financé dem bàyyi day métti quoi waaw day métti ci car fay biey xam nga day métti quoi ñun moom bu ñu doon waaw bu ñu doon may dañuy dox dem fii dañuy daw dem wallaahi dañuy dox dem. ci ñi nga xam ne nan tëj. non stade moom war ñu ko tëj moom ndax amul violence keroog keroog ndogalu yàlla rek moo am noonu ba miir bi daanu mais du violence quoi. nekkul violence nekkul dara nekkul yàlla mais ay moment dañ ko bàyyi nañ ñu ko mayal ngir yàlla dañ leen koy ñaan quoi autorité yi dañ ñaan bu baax. mais est-ce nekkul alerte boo xam si ne tey mënoon naa ñaaw tey buñ ci waxoon benn moor wala nangam rek kenn dootu xam fi ñu koy waxee jee mais est-ce que lu mel ne ñu defaraat ko ko mu gën a mucc ayib defaraat ñu joog ko joxaat. waaw tamit waaw loolu tamit loolu tamit bu ci amee tam baax na mais bu dee tribune yi man gisuma yaakaaruma ne tribune am na problème de yaakaaruma ko quoi parce que miir moom bu ci mbooloo wéeroo rek day wàcc bu ci mbooloo wéeroo day looloo daloon affaire bu amoon démb jop loolu la rek mais tribune yi ba léegi wàccul mais goo ma ne tribune am na problème waaw ndax tey ñun yaakaar lu ñu làmb tey stade bi nga yëpp na am fële journée yi bëri na tardé tam bari dañoo bari macha allah xam nga yaa ngi gis waaw noonu la demee te boobaa après day xat te andi ay jaxasoo waaw yaa léegi date yi bu ko gars yi na rek xëccoo bu xatee tamit booy bëri duñu bëri te booy làmb lañ yaakaar am la ñu am kon nañu may loolu rek ñu defaraat miir bi kuule ko <laughs> gars yi ñoo bëre <laughs> loolu laa gis quoi. <laughs> léegi foo jëm. ah maa ngi fi maa ngi fi instant bii nii instant bii wax waratuñu quoi waaw laajte kenn waruñu instant dañuy làqatu liggéey bu ñu amati combat ñëw jëf ñu wane sunu bopp. keroog bi ñi samp na ne bëri na dëgg la bëri na mais ñoo ngi fi daal ñoo ngi fi dañuy bàyyi lépp suñu loxo. neex gis naa ko dëgg la dañuy bàyyi lépp su loxo sunu manager suuru faal rek. comme ñu ne kii baax na rek amul problème bu ñu d'accord suñu staff moom ñu jël bëri ndax ñun lamb la waa Pikine. dëgg la waaw xam nga maam moom mooy loolu ay ñaari booy yu nekkoon si yoon la mais foog kenn dem fenn kenn xaar <laughs> léegi moom la yàlla dogal. non yéen ñaar da ngeen nga ah, waaw gis nga noonu la demee nag. waaw ñu ngi fii nag déglu waa ah, ku ñu jox rek moom bu ñu arrangé dañuy jël amul problème ndax ñun lamb lañ fi nekkal quoi ay xala lañ waaw. dañ jaar noonu dem gannaaw non Grand Dakar <laughs> mais ñoo ngi fi pour laamu quoi ku ñu boole rek ñu bëri waaw. da ngaa commencé samp français même pas. non même nga tàngal non nañ ma jox diw eh, mais dëgg la xam nga boobu boobu nu mu demee la mais tey jii làmb am nu muy demee rek wax waratu la quoi da nga a ñëw jëf wane sa bopp fi mu tol nii nag ñun war tolluñ fu ñuy waxee dañu war a toog xaar waaw laakatu liggéeyaat ndax xam naa ni man bu ma góorgóorloo tur bi ma tegee loxo rek ma dem. ndax xam naa mën naa bëri macha allah am naa fit am naa jom waaw bu ma jàppale tuuti wax gars yi ñu gën a jàppale quoi gars yi nekk fii autorités yi monsieur maire gars yi xam nga nañ ñu gën a jàppale quoi ndax ñun ay xale lañ te yaakaar lu dul làmb bu ñu tegee loxo ñu dem barki alxuraan bu ñu tegee loxo ñu dem ndax ragaluñu fu ñu jëm quoi ndax gëm nañ ne yàgg yàgg nañu doon champion si kàttanu yàlla mais si kaw ñu gars yi jàppale ñu quoi gars yi jàpp ndax làmb dafa métti dañ lay fay nga def si 400000 nga fay la 400000 nga def si 1 million wallahi dafa métti da ngay bëre pare toog dërëm doo ko yor xam nga dafa métti mais foog gars yi nañ ciy bu baax tey ji bu ñu amuloon ñu mel ni sama gars yi nii ñun mooy loolu quoi barke yàlla mbër bu ndaw dafa métti nañu gars yi di jàppale bu baax a baax a baax keroog sama adversaire maa ngi koy dégg lu mel ni doon kaas ci seen maire bi fële xam nga dafa métti quoi da ngay nekk làmb xam nga gars yi di la seetaan benn instant nga dem ba xawaase am tour nag léegi ñëpp bëgg a ñëw yooru te nit ki soo ko jàppale nga ko jàppale bu muy métti quoi voilà bu muy soxla ndimbal mais dañuy bàyyi ba mu neex nga xam ne tey yaa ngi mënal sa bopp ñu bëgg la ñëw teg loxo waaw noonu la demee nag voilà ñu bëgg la ñëw teg loxo benn instant soo amee noonu réagir ñu ne daa gis succès alors que dama fa noonu de mbër yu bëri mbëri du ñuy war de mbëri du ñuy war de gars yi bëri ñooy tooñ bëri de barki Serigne Touba ñooy tooñ bëri de nit nit rek la mën a doon waaw nit nit rek la mën lu may wax chaque jour rek bëgg nit ñu topp la du tax nga ñàkk fayda mais du tee di nga wàcce sa bopp oyof mais du tax nga ñàkk fayda de ñun ñàkkuñu fayda de te ay famille yu baax lañ bokk dëgg la ay mbër la mais ay famille yu baax lañ bokk ñàkkuñu fayda dugguñ si lu yoon si yoon nekkul xam nga mais teewul dañ jox ñëpp cër jox ñëpp cër waaw. ñu bàyyi leen nga sant gërëm ku xool keroog stade bi wax dëgg yaa am ni ko def xam ne am na ñoo xam ne jàpp nañ si ñu seen dërëm ñu seen ñaar dërëm seen sump seen déem boole ko ba affaire bi saf ah ñëw gunge la suñu borom def euh, li mu def donc ñu bàyyi la nga sant gërëm ñi nga xam ne si ñoo jàpp si làmb ci waaw damay santaat ñëpp rek ku ci mel ne Assane Diouf maa ngi koy bu baax di ko gërëm gis naa du ma jàppale sama père Daouda Seck prési euh, prési maa ngi koy sant bu baax xam nga monsieur le maire Aziz Paye maa ngi koy sant baax a baax Mariane Alice gis naa duñ ma jàppale bu baax a baax a baax a baax maa leen di sant bu baax xam nga di santaat euh, Pagey la DG maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi koy sant di gërëm bu baax soo mbokk waalo waalo sama yaay Assoufay Diagne sama maam maa ngi koy sant su ma nijaay ñoom Taali Seex ma tons Alioune Seye maa ngi koy bu baax a baax a baax xam nga yu mel ne ay Ibra Baye Fall maa ngi sant ñëpp santaat sama gaay bu baax yu ni Thiaw xam nga Coba waa mafia waa Yarax maa ngi di sant bu baax a baax gis nañ ma taxoo di gërëm waaw di ma taxaw ñu ma gërëm waa Pogo Pogo sama doomu ndey Lampar maa ngi sant bu baax a baax gis naa may taxoo damay war a bëri dama koy sax yërëm barki alxuraan dama koy gën a soxla man mii di a bëri maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax xam nga di santaat Thierno Ndiaye maa ngi koy sant soo mag anti borom Lyon maa ngi koy gërëm bu baax gis naa nu may taxaw bu baax a baax waaw maa ngi koy sant bu baax a baax a baax xam nga waaw noonu la demee nag maa ngi koy sant bu baax di santaat sama manager Sourou Fall gis naa lu muy daj maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm dañuy bëri sax dañ koy yërëm barki alxuraan lu ne lay def xam nga da koy xool sax da nga koy yërëm billaahi sant waa agricole waa mbooloo yëpp yëpp yëpp suñu grand ñëpp ku lim la juum ñu mel ni ñoom bàcc coach Pidja ñu ngi koy sant amuñu fayam ñu ngi koy bu baax a baax a baax santaat sama gars yi ñëpp ñëpp ñëpp mafia bi gars yi ñëpp ku lim juum nag duma ma lim kenn mais maa ngi boole ñëpp sama waa koñ nag aw ma seen fay aw ma seen fay maa ne sant gis naa maire yi nu muy taxaw paa yi fii booy surtout xale ndoy ñëpp maa ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñi ma jàppale di ñaanal sama papa ak sama yaay fu ñu tëdd yàlla yàlla yërëm leen xaaral leen àjjana waaw yàlla yàlla yërëm leen xaaral àjjana bu baax a baax a baax combat bi barki Serigne Touba stress laa ko bëri billaay ndax bu mu des weer sama waajur wàññeeku barki Serigne Touba affaire yi métti ma trop mais sant yàlla ko waa ndax yàlla moom lu mu dogal jàmm mënu si dara xam nga nit moom nga nekk teel sa teel ñàkk yaay xam nga doxal tuuti sa papa wàññeeku nga yaa ngi pare combat dafa métti quoi dama dëgër nii rek mais barki Serigne Touba Mbacke xol bu métti laa ko doon bëri mujjee bëggoon ma sax du ma entraîné du sawar ndax dafa daan def ko joué lu bari si man quoi xam nga mu doon ko lu métti mais dañu santaat suñu borom bu baax a baax di ñaan yàlla yërëm ko xaare ko àjjana di santaat sama mag yi su ma raxee yàlla na yàlla may na xolu muñ xam nga yàlla may na xolu muñ quoi waaw di wax ñu may ñaanal bu baax di sant sama mbokk Casamance yi waa Toobar Faran di Sintet ñëpp ba ci Gàmbi bàyyiwuma fenn sama mbokku maa ngi di gërëm gërëmaat ñëpp waa Fass surtout waa Fass maa ngi sant ñëpp nag Medina bi ñëpp Gueule Tapée temps bi ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi di gërëm ku ma limul rek damaa damaa damaa ndax xel day fàttu ñaaña ñaaña maa ngi koy sant bu baax gis naa nu may jàppale bu baax baax a baax dëgg yàlla di santaat ñëpp di gërëm ñëpp baax yow mi waaw di ñaan dem ba doon ay télé yu mag a mag a mag waaw gis nga ndax xam nga mbëri ndaw lañ kenn xamuñu mais yéen ñuy feeñal di ñu génne loolu yombul quoi bilaay walaay geste bu garaaw la yombul di ñaan yàlla mu dem ba doon ay télé yu mag a mag mag bilaay walaay taalaay di gërëmaat bu baax a baax a baax kon SBT Média seen émission seet mbër ñu seet ki nga xam ne moom mooy Siteu bu anti gu mag euh, boo xam si ni allah ñoom ñaar ñëpp ay champion ay ndaan te li may wax jour euh, làmba ci seen kanam te incha allahu taala làmb dinañ boolewaat mu nekk làmb joo xam làmb neex làmb jooju nag bu leen làmb di boolewaat moom yàlla na fekk moom am licence Fallou Ndiaye làmb jooju moom ko ñaan moom mais incha allah le 16 Ibrahima Diop Kajoor production armée bu benn baraak incha allahu taala arène nationale lay doon bu mu fa jógee nag le 19 incha allahu taala Giro Sera Ndiaye Tine Fallou Ndiaye moo ñuy waat arène nationale incha allahu taala kon rendez-vous le 16 le 19 ak le 12 novembre Ouzin Production moo ami mon frère jërë ngeen jëf.